asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lenn 8 avril 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fa la ñuy xëyee yëglikaay ba nag tey ba mu xëyee daal Pikine la xëy andil ñu Ama Baldé ak mag ja Zil Baldé mu mel ni daal Ama fi mu nekk nii moom boo bëggee dégg-dégg mag ja bu doon da koy tere dara bokk muy diggante ak Tapha Tine wala keneen Zil ne ko léegi nag wax ji jeex na bu avance ñëwee jëlal nga lekk yow Ama balde rawatina nag avance kii nga xam ne moo di Tapha kon daal sunu làmb nee na kii di Zil daal jox na Ama feu nee na ko lekkal ba mu neex la kon daal nekk boo bëggee dégg-dégg moom promoteur ya ñoo ca des wala promoteur ba waaye daal daa mel ni kon léegi ku bëgg fa mu fanaan la ak ku bëgg ku ko wéttali ubal bunt bi daal waratuleen a boole sunu làmb xëy tey dinu ko wax keneen koo xam ne nii moom la ko moom moo di Gris Bordeaux bu faas yëglikaay bi di sunu làmb dafa xëy séq waxtaan ak manaat saba xalifa ja Dia nag nee na diggante Gris ak Bombardier moom ñoom fi mu nekk nii daal ba tey ñu ngi déglu si siira guñ leen maanaam waxaguñ leen ci dara loolu xalifa moo xëy tey di ko wax fii nga xam ne moo di sunu lamb keneen koo xam ne moom la mu xëy yàbbi tàng na bay yegg ci jër mooy Colifay numéro 2 bu Caaroy xëy na dey di régler ay kontam ak waa Caaroy dafa jàpp ne mbëri Caaroy yi am na ci ñoo xam ne moom ay complexe lañu du ñu len lu dul ay complexe ñu ne ko déet Coli bul wax loolu mu ne maa ko wax ndax nag la ñu def kër ba may bëre gàmmu gay rafetul jekkul te jaaduwul ndax ñoom ñëpp ñu ci bëri ñëw nañ ca làmb ja rawatina ku mel ni Thérèse Ndir ak kii nga xam ne moo di Ameth Deme waaye seen digganteeg ama neex seen xaritoo ak moom moom moo leen gënal sama combat te man doomi caaroy laa ndax licence su caaroy laa yor bu dee nag sama diggante ak waa lamsaar la moom nee na loolu moom ku mu neex ku mu naqari damay xaritoog ñoom ndax ñoo may jàppale rawatina sitta ñoom taqe ak kii nga xam ne moo di maama Lamine nee na ñooñu day jàppale bi ñu koy jàppale nëbbu ko tey suba waxi noppi te dafa jàpp ne sax li am ba des mooy diggante caaroy ak lamsaar benn bopp la mënee su koo xar ñaar nee nag loo ci mën a dégg moom caaroy la dëkk tey suba fa lay dëkk nee na fekk moom mu ngi caaroy waaye daal moom kii nga xam ne mooy Coly moom ñëw na ci li nga xam ne ni naqari na ko ci doxalin wow nga xam ne waa Caaroy taxawee nañ ko ci bésam bi nga xam ne moom la doon bëre te ñàkk ko nee nag combat boobu moom la ko ko ñàkkloo lenn dong la ay conseil xëy na moom la topp ndax nag dañ ko teyoon xeex bi te loo ko waaye moom jàpp na ne day la mu waroon def dëgg bu ko defoon sax adversaire am munul ci moom dara ñu ne ko ba tey léegi yow foo jëm nag mu ne fi ma jëm fenn la Moussa Dioum mu ngi fi amul combat Malaw Seras a ngi fi Aline Seyde ngi fi Doubalès numéro 2 mu ngi fi nee na ñooñu ay ndam lañu kuli fay numéro 2 moo xëy tey di wax lool ci yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb waaye dañuy continuer dem ci leneen loo xam ne ni moom la Leewtoo point net wax mu di lii nga xam ne nag moo di sanction ba nga xam ne moom la mel menaces yi jëloon teg ko ci kaw ñii nga xam ne ñoo di waa Rock mu mel ni nag léegi yolomal nañu buum nga daa mel ni daal sanction ba kon dindi nañu ko Leewtoo point net moo xëy duñu wax loolu waaye dañuy continuer ba tey ca Leewtoo TV démb tam lamb yi daal ñu ngi ja moom feesoon na faroon na furoon na waaye kii nga xam ne day moo di Ousmane Gandigal mboot ma nga xam ne moom da ko kóol mboot mboot ma rëy na lool lool Leewtoo TV moo xëy dinu ko yëgal waaye Forza 2 moom ay avertissement la gagné kii nga xam ne moo di taqe loolu démb la amoon fële nga xam ne moo doon ca stadium Iba Mar Diop waaye dañuy continuer ba tey rek dem fa nga xam ne nii moo di Leewtoo point net dan fay des ndax mu ngi nuy xëy dinu xamal ne day li leer ba leer lamb simple ji mooy itam jaxoon na ci weekend bi diggante Dakar ak Thiès boo bëggee dëgg-dëgg nag dakaar moom kii nga xam ne nii moo di Ibou Senghor moom moo fa finaalu daan kii nga xam ne nii mooy El Hadji Sow dal di jël mise ba ñu tegoon fii nga xam ne moo di Adrien Senghor di cinq cent mille francs yi nga xam ne moom lañu fa tegoon waaye foofa moom tàngoon na jër ci diggante Pape Ndoye ak kii nga xam ne nii moo doon Ibou Senghor ndax nag dañoo bëri bëri bu méttee méttee métti far Ibou Senghor daan ko Pape Ndoye indi coow ne daal da ay séréer ak yu mel ni ki noonu ba tax public ba moom xaw nañ ko faa yuuxu yuuxu yu tara tara tar waaye dañ fay jóge jamono jooju ndakaaru yëngu moom Cees itam yëngu woon na ba yegg ci bum ndax kii di rëg-rëg moo fa teewoon mbër ya mu fa fekk yépp mu daan leen jël lañ fa tegoon demi final ba laay goote ma dëkk Cees la rëg-rëg daan yemu ca ñu ne de ne waay mu final ak sa Jara dal di koy jàggi ruur ko jël lañu fa tegoon di deux millions am ca huit cent mille francs yëglikaay bi moo nu ko xaax muy Leewtoo point net quatre cent mille ya Idrissa Jara yóbbu ko waaye leesa ba moom jàpp leen tuuni itam moo fa woon Modou Diouf lu leer nañ daan ko ca finaalu leesa ba jël deux cent cinquante millions Modou Diouf am cent mille francs loolu mooy li nga xam ne moo amoon Thiès moom tamit muy loo xam ne daal neexoon na lool lool di làmb simple ji waaye loo ci mën a dégg taala Ndiaye tey la lundi tey nag mooy le 8 avril deux mille dix neuf mu mel ni ki nag dañuy ndokkule kenn koo xam ne mooy sunu ministre de tutelle muy monsieur Matar Ba dañ ko recondiraat joxaat ko sport bi kon monsieur le ministre liggéey dong moo wóor liggéey moom bokkul ak ay wax. kon président Macky Sall jaaraama ca ki ñu fi bàyyil muy ministre de sports monsieur Matar Ba ci disponibilité bi ak simplicité bi dañ ko soxla ci kilifa. maaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal leen wax namoon nañ leen euh, depuis euh, vendredi ba léegi ak euh, weekend bi fi jot a dox seen diggante moo tax ñu nekk toppaloon leen tamit lamb yi fi amoon tey ñu dikk ak yéen ci seen revue de l'arène ak kan Babacar sama mag sama xarit Babacar nuyu naa la. soto Faye madame Niang sama rakk sama xarit comme ni nga koy waxee ah yaay njaga Serigne Moussa ñaa maa ngi lay nuyu di nuyu ñuy suivre ci Leewtoo TV. fu ñu mën a si àddina bi rek di leen ñaanal jàmm xam nga di ko sàkku ci ñoom di wax ne tey la leen di 8 avril 2019 ñu ñëw si jàngat bi Aïcha comme ni ko xamee. waaw ñu commencé jàngat bi ak feu bi nga xam ne kii mooy euh, Jules Balde jox na ko petit frère am Ama Balde pour combat am bi dox digganteem ak Tafatine Babacar mu nekk affiche boo xam ne kon war naa mën a neex gudduñ waaw fi nekk nii daal li olof yi naan maanaam béy euh, comme ni ñu ko waxeeti daal am na nu ko olof Ndiaye di mu nekk nii maanaam lay jeex na. lay jeex na ça veut dire que mbër yi nangu nañu Ama Baldé bi doon xalaat ne magam Sil Baldé jox na ko fa weer loolu nag war a son na koo mën a xaar ndax li tax mooy Ama li may wax rek xale la war na bëre a ah, na loolu pour dem tëgg Ama Baldé ak Tapha ndax ñaari mbër yi nangu nañu fi mu nii daal kon Aïssatou xamalu ci desam promoteur ba ca des waaw. waaw beneen combat boo xam ne ñi ngi ko doon wax ni ñi ngi koy dox Pape sax mi ngi ko doon dox muy diggante Gris Bordeaux ak ji euh, kii di Khalifa Dia di manager ci euh, Gris moom nee na euh, négociation yeggsiwul si moom déggagu si dara. waaw ah c'est le ménage de waaw négociation mu yaakaar naa war na mën a yegg ci moom mais nag lamb des fois dina tëdd noo xam ne nii mën nañu contacter président écrit bi wala agent wu mbër bi xam nga wax moom menace bi nag. moom moo yor dernier ba mbër mi ci boppam sax wala wala exactement wala mbër mi mais lu si mën a dégg moom am na fa am bu ñu fa yeggee moom kenn du mën a wax ku du la ménager mooy au niveau du bu signature rek de c'est pour xaalis génn CNC moom bu ménager bi ñëwul bi demul xaalis du fa génn waaye nag am na ay négociation yoo xam ne nii lu jëm ci wàllum sponsoring ak yenn détails yu day teew bu ñu jëli reliquat manager bi du mën a ay sa waaw loolu am na waaw manager moom la CNG reconnaître ay agent yi moom di jëndi ko ki nga xam ne ni mooy licence manager kooku la CNG reconnaître ñu dem si ki nga xam ne ni mooy Coly Faye Coly Faye gis nañu défaite bi mu am ci kaw ci kanamu Gamou Gueye 2 euh, moom nag jóge na fa di wax li ka naqari ci biir Thiaroye parce que gis na ni ay mbëru Thiaroye yoo xam ne seen i xaritoo moo jiitu ci moom euh, combat am ak yooyu mu naqarlu ko torop waaw dafa jàpp maam parce que comme ni mu wax ne ay complexe la ñu parce que euh, am na ñoo xam ñëw nañ ci sax ñu ngi toog mais nanguwuñoo ñëw soutenir ko ndax seen affinité bu am ak ama neex ak yu mel ne ki doon te moom doomu Thiaroye la loolu liñ ci liñ leen di waxaat ñoom waa Thiaroye mooy nañu booloo bokk nday bokk baay parce que ay satu ay nit bu ñu bokkee lu ñu mën tax xaajoo dañuy jéem a ànd te yàlla tax parce que yàggul ba ñu bëree seen biir Coly Faye nag xale am na yeneen xale yu fa ne ca biir caaro yi kon tey seen ay maga fa ne seen ay papa ndax boo jëlee ay xaadim Ndiaye parce que ay papa lañ ci ñooñu ay ñoom Ousmane Diop ñoom Baye Mandione ay Issa Pouye seen ay mag lañ ñoom xaadim Ndiaye numéro 2 ay ñoom Thérèse Ndiir ak Ahmed Dem kon li ñu li ñu leen di waxaat mooy que ne ay talent ngi ci nañ leen encadré ndax kere gis nañ benn xale bu ñuy wax Rane Diop bëri na ci boobu bëri bu rëy ay yeneen xale yi ngi biir caaro yi kon nañ leen encadré moo xam kulifay la moo wax parce que tamit xalaat naa kon xëy na combat euh, bëri yi mën am lu ci defaru parce que ñoo ñu may film léegi ay boroomi xam-xam la ñu nag li ñu koy wax encore une fois mooy nag xale la defaruwaat tamit du ko wax ne que mbir su amee jarut nekk pour man di ca polémique di yokk ay problème pour man li war daal mooy nga defarwaat dem liggéeywaat ngeen xool lu ngeen di def pour mën a ànd liggéey parce que loolu moom war a am parce que ñoom ñoo bokk caaro yi waaw. ñu dem euh, écurie Rock Énergie ginnaaw coow bi fi amoon diggante ak euh, manager yi nga xam ne presque dañoo boycotté woon euh, mburu Rock Énergie léegi nag mën nañ Leewtoo mi ngi xamal ni que signé nañ kii bi daal amnistie bi mooy drapeau blanc bi génn na coow li jeex na manager yi. kon bu ñu xëyee ñu boycotté woon waa CNG ay nit wax ci ba yàlla def jindi loolu ah, dañ ciy wax alhamdulilah parce que li tax ñu koy wax mooy xale yi nekk Rock lamb la ñuy yaakaar te ñëw pour bëre am dara mën nañu am ay combat di bëriwaat comme seen i morom loolu ak cant lay doon di ci profité di nuyu bureau ménager ak di tamit nuyu waa Rock Énergie seen bureau ak mbër fa nekk yëpp parce que loolu mooy sport daal nañu ko am comparaison mu ñu leen te yenn yi bu ko defee ku nekk mën ko pratiquer te du yàqal sa morom moom tamit la nga xam ne nii moom la war a def daal waaw parce que yàqalante bi moom amul amul njëriñ daal pour man. yàqalante eh, moom amul njëriñ ñu dellu ci weekend bi nga xam ne richoon na trop ci lamb muy frappe comme li nga xam ne mooy lutte simple ñu dem ci frappe bi Babacar ki nga xam ne ni mooy Kolbu Zap daal fay mboot mboot bu rëy kii di Ousmane Gandigal combat bu xam ne tam neexoon na si ñaari mbëri. loolu moom boo xoolee dem moo amoon Ibamar Diop ak Idaali ngi koy nuyu ñu ngi production ñu seetaan ko ci Leewtoo TV comme ni nga ko waxee nag jël ba moom Leewtoo ba xaw na yàgg tuuti waaye ba ba action ba Ousmane dawee jëli ci la ko kóol tëgg mboot sànni ko fële mu wan nag njool la woon ak ndaama boo xoolee loolu moo ne woon avantage Ousmane maanaam fexe ba waa ji ñëw ci ay tànkam moo tax bi mu jëlee tànkam mu mën ko boot bot bu mel noonu kóol nag mbër la donte xëy na euh, amul yëngu-yëngu comme yenn mbër yi mais c'est un parce que bëre lay def Ousmane itam yàgg na freiné xale ndax ay bébé jéen ay yegsil ay laay goote xale yëpp am na ku ci ne fu mu jaar ak te ba nga ci jógee xam nga ne ki nga séqal du ñeexu ñebbe kon mbër la ba nga xam ne mbër bu jar a bàyyi xel la mbër bu mag la loolu moo tax sa démb ko ama boo xoolee kii nga xam ne mooy na nga ko teg ci aw yoon na xeex ñeme na te du ragal te mën naa bëre waaye nag démb gis nga mennum cong nga ñu ubbil ko fu mu su jëli tànk ñu ko làmb ji jeex ñu koy félicité moom di ko wax ne naa daanu loolu mooy làmb Forza 2 tamit démb gis nga mook taqe par décision arbitrale la mujjee avertissement fort. car ñu jógee si lutte avec frappe bi daal doxantu fële ca Adrien Senghor démb Ibou Senghor moo fa gagné moo gagné ki nga xam ne ni moo El Hadj Sow moom la fa Ibou Senghor gagné mu nekk loo xam ne tam gis ko gis Ibou Senghor moom day raar léeg-léeg si kii bi tournoi yi waaw pourtant nag ah, nag euh, moom la gagné di wax ne li simple bi tamit comme ni wax rek mu ngi dox daal mu ngi dox vraiment mu ngi bougé bu baax a baax a baax waaw daal di gagné ci luuri Tony 2 da waaw moo gagné a Diarra Tony 2 daal di gagné ki nga xam ne ne mooy Modou Diouf euh, Modou Diouf ci léger bi waaw loolu tamit moom li ñuy wax rek rek jël na tournoi moom dama koy wax di ko waxaat du information quoi waaw mooy train bi yegsi na du information xanaa bu retardé kay loolu la ñuy wax Reug Reug bu jëlul tournoi moom mën nañ ne jëlul tournoi euh, loolu information la waaye jël na ko moom kon Thiès loolu ma fa amoon démb mu fekk fa waa Thiès parce que boo dee nee nañ daan laay goote demi final door a final di sama ay nit nekk foofu sa Thiès vraiment di nuyu amateuru lamb yëpp daal ay satu fay muy lu neexoon euh, Leewtoo TV li leen andiloon tey ci seen revue de l'arène ñi leen di jox rendez-vous suba balaa boobu ñuy gërëm Mame Talla ci caméra bi ki nga xam ne ñi mooy Ousmane si montage bi di gërëm équipe Leewtoo TV bi yëpp Babacar di waxaat joyeux anniversaire sama doom jooju di la woon rek gudd fan sama doom jooju aysa amin yàlla na yàlla nangu ñaan sa doom jooju kon ñu koy souhaiter moom tamit joyeux anniversaire di ko ñaan gudd fan ak wér mu dem bay way juróom fekk encore une fois di la nuyewaat di la wax ne moom fi nga génn nooy na waaw Moussa ñaa yokkal sa loxo xeer yi a gën a daal am na solo létt yi macha allah li nga solit macha allah parce que nag lu rafet ku ko gis danga koy apprécier wala du noonu yàgg noonu la fa demee kon Moussa loo dolli doyul di nuyu ñu ñuy suivre ñëpp amuñu seen fay parce que ñi nga xam dañuy jël seen temps di bind di seetaan vidéo yi ay sa amoo seen fay ça veut dire que ñu ngi lay jubbantil lii defaral lii ñi di la apprécier parce que loolu mooy àddina ku la yéenewul baax rek du la wax nga defar sa toogaay kon yéen amuñu seen fay fu ngeen mën a ne képp kuy suivre Leewtoo TV rek rawatina revue de l'arène wala vidéo lu mu mën a doon nuyu nañ la la tuuti yaay saar tamit du ma ko fàtte di ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm di nuyu waa Géejawaay yëpp waa Pikine Parcelles Bawol Bawol yi tamit du ma leen fàtte waa Njambur waa Kajoor mais waa Europe waa Argentine wa Afrique du Sud góor a Seck di nuyu ki nga xam ne nag mooy Lamine Lamine Seck waaw sama rak nekk ca Lutte TV di ko siyaar di ko ñaanal jàmm di nuyu waa Lutte TV rawatina Xavier Seck ak kan ki nga xam ne nii moom mooy Ibrahima Faye Beuz ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñooy waa Lutte TV di wax ne foofu tam lamb ñoo bokk ñoo bokk baay olof bokk teen laxasoo ay goj di wax Sénégal yàlla fi jàmm yàgg te sax fi gouvernement bu bees bi ñu teg ngir 5 ans yàlla nañu réussir lu nga xam ne nii moom la sénégalais yi xaar ci ñoom parce que nag liggéey bu jotee dañ koy def te wàññi wax ja Aysatu xol bu sedd yaram mu sedd yàlla na ko ñëpp am tey nag moom ah saf na la c'est la <laughs> ah, ba suba incha allah ci benn revue de l'arène